أرجو من الله جار ما سيد العاد مالك يرجو ويرجو يرجو يرجو من الله أي شير إبراهيم على خيتك ويرجو يرجو يرجو من الله جار ما مولدنا يرجو ويرجو yarja ajmain ayuha alxaadiruna walxaadirat fi lbuqaati almubarak nuxayikum بتحية الأهل الجنة في الجنة أقول من بعد افتتاح قولي بحمد ذي الطول سديد القول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk jullit yi fi daje mbokk paspas pas mbokk diine mbokk xadara ñoo ngi leen di nuyu ci baat yu sell yooyu muy jàmm yàlla ak yërëmandem ak yiwam yàlla na ko yàlla sëmbërtal ci suñu kaw bi barakati sayyidil wujud wa tabarakallahu di nuyu mbooloo mi yépp waaye di jiital ci nuyoo bi sunu sang bu tedd ba sang bu yiw ba ki yàlla may ba mu xam ko ne tekk ki xam li mu am ne tekk yàlla dajala la mu am may ko ca mu ne tekk muy Chérif Ibrahima Haydara At-Tijaani ñu ngi koy nuyu bu baax a baax nekk te di ko ñaanal yàlla ni ñuy tàllalee suñuy loxo ci moom di ko wax mu ñaanal ñu ñu nit noonu lañuy ñuy war a wéetee di tàllal suñu loxo di ko ñaanal yàlla na fi yàgg yàlla na ko yàlla defal ndax fa tabaarakallaahu koo xamante ne amoo ku dul moom li Habib Sarr daan wax sëriñ Maodo rekk nga koy wax Habib Sarr dafa ne Serigne Maodo koo xamante ne bu ko yàlla yàkkalee doomu jàmbur yi rekk la koy yàkkalaat kon dañu lay ñaanal yal na yàlla di yàq sa ndab muy fees ndax suñuy tub bu rëy waaw man wax ju ma neex la Habib Saara ko waxoon Serigne Maodo mu ne ko koo xamante ne bu ko yàlla yàqalee ci ndabam ba mu fees day turnawaat yàqal ko doomu jaambur yi yëpp ba du ci dese dara kon war na doomu jaambur yi di ko ñaanal ndabam di fees ngir suñuy tubbu rëy tabaarakallahu kon Chérif Ibrahima Haydara yal na ko yàlla sàmm ci biir ak ci biti bi barakati sayyidil wujud maamam bu tedd boobee yal na ko yàlla defal yàlla sàmm ko sàmm ko sàmm ko bu baax a baax fa tabarakallahu e, e, luñ ko nar a ñaanal rek ñu xeeb ko fu ñu tubbee rek suñu xel xeeb ko kon fa tabarakallahu yal na ko yàlla defal jàmm nuyu ko bu baax a baax nekk ci ndigalam lañu ñu bëgg a waxtaan ak mbooloo mi yaakaar naa rajo bi gën naa foor nii de buñ ko yokkee waaw la ñu bëgg a waxtaan ak mbooloo mi incha allahu rabbi ci abu Aboubacar Saddiq muy premier xalifa sayyiduna Muhammad comme ni Serigne babakar si borom bënekaara bi doonee premier xalifa Seex Sayyidul Haaji Malik loolu la yàlla defal Maodo ci këram te loolu la yàlla defal ki gën ci mbindeef yi muy sayyiduna muhammad kon du azar fa tabarakallahu di nuyu bu baax a baax kilifa yi daje ci xadara bi xam naa dañuy song waxtaan bi bu sang bi ñëwee Serif Ibrahima Haydara nuyoom mooy gën a jotale suñu bos comme ndigal lañ ñu jox ci waxtaan ñu ñëw rekk soobu ci waxtaan wi waaye ñu def rek zikrul xaas baadal am bu ñu nuyoo sunu imaam bu tedd bi muy imam yuusufa gay jamil mu yóbbaale mbooloo mi yépp fa tabaarakallaahu e, nuyu jigéen ñi bu baax a baax jox leen seen wàccuwaay ñaanal leen yàlla yal yàlla defal leen jàmm lu ngeen bëgg di ko yootu te mu gën ci yéen yal na leen ko yàlla jox bi barakati sayyidil wujud fa tabaarakallaahu ñu waxtaane ci aboubacar saddiq hachim sëriñ mansour ak Mansour Seck jërë ngeen jëf yal na yàlla fay leen e, yonent bi léeg-léeg nit day nekk di ko way du dégg sax am ku yëngu waaye léeg-léeg nga way ko rek am ku yëg bu boobaa sa waya am ruux way wu amul ruux du yëngal ruux te moom ngeen way léegi fa tabaarakallaahu moo tax ñépp yëngatu bi ngeen di way te foofu fu doy waar la ci yonent bi ma yi taxtaaju sa sajaatuhu Sidi Hadj Malick nee na jaaduwul man Maodo damay taxaw di jéem a leeral sax njàmbaaru yonent bi saa il ahla madinati rek laajal waa madina mu ne demal ba madinatu munawwara nga laaj leen lay la fas xiximi seen guddi ga ñu tiitoon kenn ñi mawul jóg tàppet yépp dugg ci ronu lal yi ñi gën a ñime gën a sàngoo seen mbàjj gën tëjaat bunt yi nabi jóg regle ko di delsiwaat cinq yi gën a ñeme biir madinatu munawwara dajaloo génn ànd ñu ne dañuy fay njàngal bi yëngal madinatu munawwara ñu sa sayyiduna muhammad nabi ne leen dellu leen fay naa ko Maodo nee na kon laajul may leeral njàmbaaram laaj leen waa madina rek guddi ga ñu tiitoon ku leen xettali du kenn ko dul yonent bi waaw looloo tax Maodo ne du ma leeral njàmbaaja njàmbaaram mukk maa kaana taxtaaju tabyinan sa jaatuhu mu ne ci man laaj leen waa Medina ñoo dëkkoon ak moom waaw dontu nekk Seydi Hadji Malick nekk dëgg dëgg nekk fu waay mën a dëkk ak noo jege yonent bi moo la gën a xam yonent bi waaw kooku moom yàlla def ko ci xaasal fa tabarakallahu e tey rek maa ngi koy waxtaan lu yéema la am ci Aboubacar Saddiq li yéema moo di lan keroog seexu sàll mii ak fa tabarakallahu àlliin biñ fi jógee ajjuma ji dañu waxtaan ak man ginnaaw bi shérif waxee ba noppi ajjuma bii di ñëw nañu waxtaane ci Aboubacar ñu toftalan ko ba bala moo àgg ci Seydina allin seex ne ma sama mag ji yàlla dafa dogaloon mu am xew-xew bi ñuy jub gàmmu tiwaawun mu ne xew-xew bi daf koy bàyyi ba mu jóge gàmmu tiwaawun mu def ko waxtaan ci Seydina Muhammad yaakaar naa doom ji yonent bi la ko tuddee de wala waaw kañ mu tuddee doom ji yonent bi fële ca liberté 3 ñu àgg ci biir jumaa ja lañu doon defee waxtaan ba ci yonent bi bi may waxtaan bay waaj a tëj seexoo ngi ne la toog ki ñu woo mu nañu dama bëgg oustaz laalal ma ci aboubacar saddiq balaa moo tëj ma yëg ni làmmañu sërif làmmañ bu barkeel la yemul foofu de déedéet démb ma toog ba ci yàgg am ku ma sant miiras ma ne nañ ko jox imaam Lamine Saaxu moom yàlla may na ko ca ma woo alxaaji imaam lamin Saaxu pour bëgg ko ko wax mu na ma léegi laane bu ma sëlmalee ci julli tàkkusaan bi ma woo la pour ëllëg nga waxtaanal ma ci Aboubacar Saddiq ca jumaa Sëriñ Mansour borom daara ji golf mu na ma ta dañu koy tegale Ababacar ngay waxtaan teg ci Omar teg ci usmaan door cee teg àllin sama xel dawaat ca sanga ba sërif Ibrahima Aïdara at yi dafa am làmmiñ yoo xamante lu ñu tudd rek loola di nga ko yenu fan yooya moo tax sëriñ Mansour mii mos maa nettali am lu sërif tudd ci moom mu ne ko déet baaba dimbali ma rek dellu tuddaat ba ca gën a baax ndax seen làmmiñ a nangu tey maa ngi doon waxtaanee Aboubacar ca jumaa sëriñ Mansour laal naa ca nag ñiy wax ni Sayyiduna Alin moo sut Ababacar sut Omar sut Ousmane parce que am na ñu taxaw temm ne Alioune moo sut ñooña Seydi Hadji Malick nee na déedéet teguñu ko fenn laqad faaqa ashaaba nabi mu ne Aboubacar moo gën a kawe mboolam saxaaba Sayyiduna Muhammad te moo njëkk a tuub ci gor guddi waxambaane waaye bu dee ndaw Sayyiduna Alioune la bu dee jigéen Xadiija la Aboubacar moo toogee xilaafa sayidina Muhammad ginnaaw bi mu génnee àdduna donte am na ay werante ba taxaw nañu lu mat ñetti fan ca ñeenteelu guddi ga ca diggi guddi ga la ñu rob sayidina Muhammad Sidi Hadji Malick nee na yeexa biñ ko yeexa rob man Malick Faa Waddawe la dontu maa ngi tiwaawun ñoom ñoo nga madinatu munawara xam naa li tax ñu yeexee rob sayiduna Muhammad ñu ne Maodo kañ lañ ko lob mu ne fii xawli ashurin anna dafna laylatul arbia mu ne waaye du bëccëg bi de fi jaw fi layli ci diggu guddi gi la ñu rob sayyiduna muhammad ñu ne Maodo lan moo tax ñu yeexa ko rob dimbali ñu mu ne axaru daf na nabi min daxsatin yow mi may déglu bayit bi tàmbalewul foofa waaye booy firi fa nga war a tàmbalee min daxsatin la tàmbalee axaru daf na nabi waaye booy firi da nga naan axaru yeexe nañu daf na nabi rob sayiduna muhammad min daxsatin ngir tiitaange waaw madina yépp jaxasoo ñu ne nu ñuy def ba rob yonente bi am ñu taxaw ne Omar yaa war a toog am ñu taxaw ci Ousmane am ñu taxaw ci Seydina Alin Aboubacar toog rek mais la leen atte Seex Seydul Haaji Malik nee na xam naa ko Maodo nee na kooko ñaari yoon la ñëw ci yonent bi benn ba keroog bi yonent bi di juddu ñëw na ba ca portu ba buux buntu bi tuuti yéer nu gis yaay Amina mu mu mu mu mu mu mu Muhammad mu na baat ba mu sàndi man Malick Fa Wade wala sama nopp yi dégg na ko ba ma dawale ko ci sama xalima ñu ne ko ban baat la mu ne dafa ni iza wadaatihi sammihi muhammadan al am ruktumi ay kitmaani fa taxtani mi mu ne bu juddoo na ngeen ko tuddee Muhammad mu ne baat bi loolu la wax ne mes dem keroog bi yonent bi génnee àdduna nag baat boobu moo leen attewaat dafa sol yëre yu weex tàll na cëpp ci diggante saxaaba yi mu ne kan moo àndoon ak sayyiduna Muhammad ba mu génnee màkkatal mukarrama di dem madinatu munawwara ñëpp joxoñonoo Aboubacar mu ne huwa xalifatuhu min baadihi mu ne mes dem ñaari yoon yooyu la ñëw ci yonent bi te leera la ko indi gaa yëpp dajaloo Seydina Omar waaxu jaayanteeg Aboubacar Saddiq ña ca des ñëpp ñëw jaayanteeg Aboubacar Saddiq li mu am ci yonent bi la kenn amul yàlla junju saxaaba yi ci alquranul karim te nëbb ko te nëbb ko ni leen yàlla tegalee sax ngay xam ne saxaaba yi noonu la tegaloo muhammadu rasulillahi du yonent bi walladina maahu du aboubacar saddiq asiddaau alal kufaari du omar ruxamaau baynahum taraahum rukaan sujjadan yabtaxuuna fadlan min allahi du ousmaan siimaahum fi wujuhihim min asri sujuuti di sayidna alin ibnu abi taalib siimaahum fi wujuhihim min asri sujuuti mu delluwaat ni karamallahu wajha ndax alin mësta sujootal xërëm foofa la loola di dellu yàlla bàyyi foofa ne saxaaba yi bu leen leerul foofa daw leen ngeen seeti ji ko ca suratu baqara saar ba alif lam miim yàlla ne zalika alkitab laa rayba fiihi huddan lil muttaqin alladina yuminuuna bil xaybi du aboubacar am déet lu yonent bi umpale dem def ko ñëw ñëpp taxaw di weddi nabi aboubacar dëggal sayiduna muhammad moo tax am na ñaari garaat sadiqan mutasaddiqan Aboubacar dafa dëggu ba noppi tey dëggal yonent bi lu yonent bi wax rek mun a wax na dëgg fu mu ko mën a defee man Aboubacar bu ma fekkee ak bu ma fekkeewul nabi wax na dëgg moo tax alladina yuminuuna bil xaybi Aboubacar mooy ka nga xamante ni lu kump ci yonent bi rek buñ ko ko nettalee gëm na ko wa yuqimuuna salaata ku génnee julli du Omar moo génnee julli na fàng ca pénc ma àggaguñu ci moom wa mimma razaqnahum yunfiquuna Ousmane jëlul alalam dépassé ko ci yonante bi ba yonante bi fanaanoo ñaanal ko guddib lum mu kenn bokkut ah walladina hum bima unzila ala muhammadin déedéet du foofu wa mimma razaqnahum yunfiquuna walladina yuminuuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil axirati hum yuuxinuun muy sayidina allin xoolal xoolal imam Yusu gis nga yàlla ni mu tegalee aaya ya Habib Sarr mi ñi mel ni xotteeku nekk Habib Sarr mi ñi mel ni xotteeku nee na waxuma ni ci njabootu Maodo la wàcc waaye jekk nag ñoom Habib Sarr ñu ne ko nan nga koy layalee mu ne muhammadu rasulillahi jox ko sayidul haaji malik wallazina maahu ki sësoon ci moom jox ko alhaaji mansour bal qawmi asiddaw alal kufaari ku laal tariqa bi mu duut la baaraam jox ko borom bëne kaara bi mu ne ruqamaa u baynahum jox ko alhaaji abdul aziz si dabba am rukaan sujjadan mooy alhaaji habib habib sar mi ñime li xotteeku mu ne waxuma ne fala wàcc nag tele la day dem waxuma ne fala wàcc Habib Saara nettali nee na jox ko waa Kër Maodo jekk nag ñoom de waaye wàcciwul ci ñoom xanaa leer na ñeenti saxaaba li tax yàlla dénk leen sayyiduna Muhammad xam nga lu mu adduna ñaata ñaata koñ la am du ñeent ñeenti koñ la am lan moo gën a foor ci alquranul karim neel bismillahi rahmaani rahim ñeenti araf la bismillahi rahmaani rahimi ñaata bàkkaar la ñuy def neel ñeenti bàkkaar weesuwu ko bàkkaar yi ñuy def ci adduna bi yëpp li muy bëri bëri ñeent la boo waxee bismillahi rahmaani rahim mu lekk ñeenti bàkkaar yi bi nga def guddi ak bi nga def bëccëg ak boo tey ak boo teyul jeex na beneen amu fi boo waxee bismillahi rahmaani rahim mu lekk bàkkaar yëpp du ca bàyyi dara yàlla ne ñeent ñiy topp sayiduna muhammad dama leen di def ñeent ndax ñeenti ko ñi àdduna moo tax seexu na tiijaane ñëw ne fu ma am gaa yi di ci rëkk laa ilaha illallah ma tuddee ko zawaya zawaya mooy ñeenti koñ moo tax sëriñ habib si mu sëriñ mbay si man suur ne boo dee góorgóorlu ci zawaya yi nga am yitt ci xafaaya yi dara du mën a dox sa digganteeg mazaya yi amat mazayaahu bal daarat zawayaahu Aboubacar Saddiq sës ci yonent bi jàppale ko ci lu mu mën a doon moom Aboubacar Saddiq wa léegi e, yonent bi bi muy génn makkatal mukarrama ku mu àndal Aboubacarin ana Omar boobata ana Seydina Ousmane ana Seydina Ali ñoom ñëpp ñoo nga fa mais li ma gën a yéem ci Aboubacar lan moo tax mu préparé ñaari waruwaay ku ko wax ni di ngeen mës a gàddaay dem Madinatu Munawwara waqat a adda abu bikirin rahilatayni Maodo loolu la wax Seydi Hadj Malick nee na Aboubacar moo ngi préparé ñaari waruwaay te xamul ni madinatu munawwara lañ jëm moo tax keroog bi yonent bi ñëwee ci moom cofeel bi mu am ci yonent bi nabi ne ko hat azinallahu hijratahu yàlla joxe na ndigal pour ñu gàddaay dem madinatu munawwara Aboubacar xam nga lan la njëkk laaj nabi def ko ne a istiqaaban ya rasulallah nabi ndax ñun ñaar ñooy ànd iz qaala nabiyuna naam Sidi Hadj Malick nee bi nabi ne ko waaw ne Aboubacar waaw ñun ñaar ñooy ànd baka Aboubacar ne yëkkat di jooy kaman fi siddati alami Sidi Hadj Malick nee dafa mel ni ku ñu def lu ko metti ni mu doon jooyee bay yëkkat ngir ànd gi muy ànd ak yonent bi moo ko neex xoolal li ko laaj a istiqaaban ya rasulallah Maodo nee jotaay ba Maodo def ko fekkee Sidi Hadj Malick mu ne ba ba Aboubacar solee yërëm sax laxas bopp ba takk ko di waaxu di dem lan moo tax Maodo bindul Aboubacar di waaxu rek di dem kër yonent bi mais la mu ci boppam sax bindaale na ko jaa rasulu atiqan fii taannuqihi ñu ne ko ban heure mu ne naxwa zahirati mu ne nu mu doon waaxoo mu ne fii hammin dafa am yitt ci waaxu ja fii hammin wa mu'tazimin mu dogu di wuti ji sayiduna sayiduna Muhammad dogu di wuti ji Aboubacar Saddiq mu ne jaa a dikk na ar rasulu sayiduna muhammad kan la dikkal atiiqan ku ñu goral ka atiiqan ku ñu goral ka muy aboubacar saddiq fii ta annuqihi moo ngi laxas ca bopp ba laxasaayu naar yi mu takk ko ci boppam ndax tàngoor wi ndax wa zahirati ndax naaj bi dafa tàng jër fii hammin moo ngi ànd ak yitte wa mu'tazimin ak dogu pour ne ndigal ñëw na pour ñu dem madinatu munawwara keroog ba mu waaxew ba àgg ci kër aboubacar Sidi Hadj Malick nee na néeg ba ba mu fa duggee ndax fekk na fa ay xale wala fekku leen fa man Maodo xam naa ko Maodo ne ku la laaj neel fekk na fa njabootu Aboubacar Saddiq mu ne Aboubacar ku nekk ci néeg bi Aboubacar ne ko xayra ahlika maa fil bayti min irami mu ne ku dul say njaboot néeg bi kenn raxuñu boo de wax dara ci man wala ma di ko wax dara dara ci yow ñii day duma leen génnee ndax say njaboot lañu bu fekkee ne yaa ma moom yaa moomaa la yonent bi toog waxtaan ak Aboubacar ci gàddaay gi ak nan lañu ñu war a demee Aboubacar ku yéema la mooy première saxaaba sayyiduna Muhammad loolu moom nañ ko saxal kooku moom ku ko saxal am jàmm ku ko saxalul nekk ci musiba rek ba faw ndax yonent bee ko saxalee noona door a dem Aboubacar Saddiq yonent bi ànd nag moom lu yàgg te tuubut Papa Yahya yonent bi ànd nag Aboubacar lu yàgg te tuubul def ko soppu rek Aboubacar di ko xool fu mu turne rek di seetaan nabi ñu ne ko waaw looy ànd ak waa ji te diine lay woote te yow gëmagoo Aboubacar ne ko cofeel lek al ndax al amin lañ ko tuddee ku ko mu ne ci loolu laa ko wóoloo dama am cofel ci moom am bis Aboubacar toog ak bi di waxtaan ak moom fekk géntoon na benn gént moom Aboubacar nettaliwu ko ku ko jege waxu ko yonent bi waxu ko soxndam waxu ko kenn moo ngi denc gént gi rek toog di xaar mu toog di waxtaan ak nabi ba ci yàgg mu ne waa yow nga ne yàlla la yónni nabi ne ko waaw fa lillahi alhamdu wa sukru mu ne ko ab yonent nag balaa ñu koy gëm faaw mu wane preuve luy sa preuve ni yonente nga yàlla la yónni yonente bi ne ko ah Aboubacar yaay laajte ci misaal 1922 ba ngay gént ci sa kër benn weer daanu ci diggu ëtt bi nga jël mbàjj mi daw ba àgg ci weer wi sàngook moom benn mbàjj nga may laaj ndax man yàlla ma yónni wala yàlla yónniwu ma anna zalikal xamaru man sayyiduna muhammad mun a weer googu man lañ la junju man nga war a àndal yaay sës ci man aboubacar sukk boolew ca benn wa ne ko ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu annaka muhammad rasulullah mun a ndax gént goo gént mënu koo nettali kenn ki nga yaakaar nettali la ko kii la yàlla yónni ci la jóg ànd ak sayyiduna Muhammad am bis nabi di seetlu ngëm-ngëmu Aboubacar fu mu toll waaw nabi di ko seetlu ngëm-ngëmam fan la toll nabi jël benn jaaro ne abubakar demal ci tëgg bi nga ne ko mu tëggal ma jaaro bi waaye bu ko tëggee ba mu rafet fii ci njongo yi njongo fii olof njongo la koy wax fii ci njongo yi na ci bind laa ilaha illallah te yem ca loolu laa sant Aboubacar jël jaaro ba dem ba ci tëgg bi ne ko tëggal ma jaaro ju rafet pour sayyiduna Muhammad la waaye fii ci njongo yi bindal ma ci laa ilaha illallah muhammadu rasulillahi mu ne ndax min ibtidaa'il baxara ila intihaai naas foo jàng atiullaha wa la ci laal di teg mu ne ki yàlla jël turam toftale ci turam ba ku leen nar a tekkale soo yeboo bàyyi ka ca des ku leen nar a tekkale alku du ba ko def mukk ndake yonent bi bi mu koy yónni xam na ni Aboubacar bu àggee dana ca teg turam Aboubacar teg ca turu yonent bi delluwaat dem ci yonent bi jox ko jaaro bi nabi xool gis ñu bind ca laa ilaha illallah muhammadu rasulullah nabi ne ko moo Aboubacar laa ilaha illallah rek laa la santoon Aboubacar ne ko waaw laa ilaha illallah ngama ma santoon waaye seet naa ba seet sa tur ku ko nar a tekkaleeg turu yonent bi wa dammal ilahu ismahu yàlla dafa jël sa tur tàpp ko ci turam mu ne kon duma ma ko tekkale yonent bi fi mu defee loxom nii siggiwaat di xool Aboubacar di xoolaat jaaru ba fekk ñu bind ci suufu jaara bi Aboubacar saddiqullahi ko liggéeyal yàlla yàlla fay la yonent bi ne waaw kan jaaru bi far ñett yi mët na bind nañ ci laa ilaha illallah toftal ca muhammadu rasulullah ñu teg ci Aboubacar saddiqullahi moo tegu ci ginnaaw yonent bi looloo tax yonent bi am na jotaay ñu indil ko benn ndab moom nabi mu koy séddale saxaaba yi mais keroog nabi li mu doon def dégg naa sax sang bu tedd bi mu ne alaaji du mës na koo def fii ci këram nabi dafa jël ndab li teg di tubb di sexal saxaaba yi waaw mu ne ku ci nekk maa koy sexal ci sama loxol bopp mais saxaaba bu mu sexal rek romb la dem ku mu sexal rek romb la dem àgg ci Aboubacar tubb sexal ko Aboubacar sàkkar mi nabi taxaw di ko xool ba mu dawale booba mu tubbaat sexalaat ko Aboubacar Sàkkar mi di dem ba mu dawale booba mu tubbaat sexalaat ko ñetti yoon mu bëgg a dem Omar xëcc yëram ne ko doo dem lay ko balaa ngaa dem sinon rek saxaaba yi ne dang ñuy gën a lante te xamuñu li tax nga def ko yonent bi ne dama tubb di sexal Aboubacar dégg yàlla ne ni ma saddiq nee na ma tubbaat di ko sexal dégg jibrilu ne ni ma rafiq ma tubbaat di ko sexal dégg israfil ne ni ma la atiq ñetti turu Aboubacar ci jotaay booba la ko ñett yëpp la Seydil Hadji Malick Sy borom ba ba góor gu tedd googee sol yére weex tàll mbax na bu weex tàll kaala gu weex tàll sikkim bay la nga weexaala tàll xuus ci godoro 66 a génn ta takkul Malick faa wàddawee la la ma ca juróom-ñaari gaar ya Seydi Hadji Malick nee na ñetti turu yëpp indil naa leen ko ci xilaasu zahab pour ngeen xam ko ñu ne ko ana atiix ba mu ne islaalu sayidina siddiq mooy siddiq ba mu ne ko ana atiq ba mu ne jaa rasulu atiqan ñu ne ko ana rafiqa mu ne nima rafiq laqad sawa makana maxilihi ñett yépp la Maodo wayee Aboubacar bàyyiwul dara bu koy way ñetti tur yépp la koy wayee moo tax boo duggee ci xilaasu saab da ngay dem ba ci yàgg dégg atiixan booba Aboubacar la nga dem ba ci yàgg dégg mun a rafiq booba Aboubacar la nga dem ba ci yàgg dégg atiix booba Aboubacar la yooyu yëpp mu am ko ci yonent bi léegi nag ñiy wax ni sayidina àllin moo sut saxaabay dañu jël li leen arrangé ñoom bàyyi xadis yi leen arrangé wul parce que yonent bi toog na wax benn xadis ne maa li ahadin manzilatun fil qalbi ka abi bakrin siddiq yonent bee ko wax mun a saxaaba yëpp kenn amul wàcc waay bu réyee ni Aboubacar am ci sama biir xol loolu yonent bi moo ko fekk saxaaba yëpp a ngi toog na bi ne maali ahadin manzilatun fi qalbi ka abi bakarin si ka abi siddiq yemu fa mais na bi delluwaat ne iqtadu bi la min baadi aboubacar wa omar na bee wax mu ne bu ma fi jógee roy leen ñaar roy leen ñaar ci sama ginnaaw ñaar ñooñu bu ñu demee nekk ngeen roy ña ca des tegu ci seen ginnaaw ñu ne ko kan mu ne bu ma fi jógee roy leen Ababacar Saddiq ngeen topp ci ginnaawam mooy sama xalifa Aboubacar bu fi jógee nekk Omar ay toog ngeen topp ci ginnaawam loolu xanaa leer na ñaar yooyu yëpp yonent bi moo ko wax Aboubacar moom daal moo sësoon ràpp ci sayyiduna Muhammad keroog bi yonent bi di génn màkkatal mukarrama aboubacar la àndal aboubacar la àndal bi mu préparé pour dem sayidina omar moo nga fa àndut ak moom sayidina ousmane noona sayidina allin noona mais aboubacarin siddiq la àndal bi ñu génnee di dem rek la yàlla yónni jibrilu bi ñu génnee di dem rek la yàlla yónni jibrilu ne ko dawal gaaw nga dalal ma aaya joo xamante ne côté ko ba ñu àgg madinatu munawwara bu ñuy dugg nga dawaat yeggalil ma aaya ba moo tax aboubacar bi muy génn màkkatal mukarrama daanaka yóbbaalewul alal yóbbaalewul alal moo tax alquran utilise lil fuqaraa a fuqaraa du am te keroog ba muy dem gëléem yi ëpp ci madinatu munawwara aboubacar a ko moom fas ya ca ëpp moo ko moom bitig ya ca ëpp moo ko moom Aboubacar ne lépp nekk nangoo naa ko fi bàyyi ànd ak maamu Serif Ibrahima Aydara Atijaani mu ne ku bëgg ñu dem ku bëggul nekk toog fi waaye kii ma ko bàyyi mu raw ma Aboubacar génn lil fuqaraai muhaajirina alladina uxriju min diyaarihim xoolal wa amwaalihim ci ginnaaw lañ ko bàyyi alal ja demul ya jot a raw ba ñu tabaxee ko place ba nekk ca madinatu munawwara sa ñaari sëtiyee ko toppatoo Abdullahi ak Asma ñoo dem kër ga fekk ñu yett ci xandeer lu doy ni téeméeri ngurdu loolu lañu jox xale yi ñu dem weccoo ko xaalis danaa ca àgg ci kanam abu abubakarin saddiq mu génn ne bi tànk yoo sulli ma suul ko ba ñu dugg madinatu munawwara duma la bàyyi yow rek lay àndal ñu génn seen kër ya nangoo ko bàyyi foofu ngir ànd ak sayyiduna muhammad wa amwalihim bàyyi fa seen alal ya yabtaxuuna fadlan nekk ñu yaakaar ngëneelu yàlla wa ridwaan yabtaxuuna fadlan ñu yaakaar ngëneelu yàlla wa ridwaanan ak ngërëmu yàlla loola la ñu bi ñuy dema ah. ñoo ngi loxo yi neen mais yàlla lañu ñu ci seen jëmm ak lañuy fekk ci madinatu munawwara loolu yombul yombul mais Aboubacar def na sacrifice ànd ak Sayyidina Muhammad ñu génn màkkatal mukarrama bi ñuy génn rek la la la la tàmbali aaya booba ba mu àggee wa ridwaanan yàlla ne ko téye ko foofu ba ñu àgg madinatu munawwara ma xool waa lansaar nan la ñuy mu muhaajiriina yi bi ñu duggee rek ku am ñaar yëre joxe benn bi ku am ñaari cin joxe benn ba ku am ñaar ñaar ñaar loo am ci ñaar rekk jox mu muhaajiriina yi benn ya yàlla ne ko dawal nga yeggale aaya ba wallazina tabawwa'u daara wal imaana min qablihim yuhibbuuna man haajara ilayhim mu ne tali ci gën a yéeme buñ koy joxe doo fekk ci seen xol ñuy wala yajiduuna fi sudurihim xaajatan du ñu aajawoo li ñuy joxe dañ koy joxe rek mu dañ ci seen kal doon naa ko wax ca gàmmu ga keroog nee naa Sénégal toll na foo xamante ne ku la may téye ko bu lekk gum téyal liñ la may ba mu am ñetti fan nga waaxu ci këram ne ko diw yaa ma may lii mu na la waaw billaay maa la ko may nga ne ko waa dégg naa la dugalaatal sa poos bu lekk de toogaatal ñetti fan nga dawaat ci moom ne ko waa diw lii moom yaa ma ko may mu ne waaw maa la ko may ci xol bu sedd guy nga ne ko ah ñoo dem police ñu signé lii daal <laughs> jar na ko de fi mu toll nii ñooñu nekk <laughs> Serigne Mansour wala yajiduuna fi sudurihim xaajatan mimma uutu xoola mimma uutu wa yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa yàlla yeggali nekk wa man yuqa suqa nafsihi fa ulaika humul mufliqun